jërë ngeen jëf Pierre Tama Boubane Ousseynou Diallo ak Eugène Mingo di ñetti soldaari Sénégal yi faatu keroog ca Mali l'observateur xëy na seeti seeni mbokk li yéenekaay bi mi ngi ñuy baaxe ay xibaar ci ñetti soldaar yi Malick Diallo di makki soldaar ba woon Ousseynou Diallo mi ngi wax ci journal bi ne rakkam Ousseynou Diallo gisoon na ak faatom ci gént ne woote woon na fi ne dafa bëgg ñu génneel koy sarax ndax dafa gis ci gént ay soldaar yi Sénégal ne moom di ko rapatrier ci réew mi seen baay di Abdoulaye Diallo di xamal waa L'Observateur ne doom ju sori woon lool ci moom moo dem yéeneem yépp moo ne woon nu mu mën a tabaxee kër ba dugal ñu ci bàyyi na fi ñaari ne kenn ki juróom benn weer la am Eugène Minko bokk moom ci ñetti soldaar yi faatu L'Observateur bi bi mu faatoo ci lañ ko xamee ki ci des di Pierre Tama Boubane soxna si mu fi bàyyi di Toussaint Takki Boubane nee na wàll jëkkëram ji dem bàyyi na ci ginnaawam ab liir bu am ñaari semaine boo xam ne du ko mës a gis ñoom ñetti soldaar yooyee la doon xeex ba des di jàmm ci réew Mali jàmm joojee bokk na ci li gën a fës ci kàddu yu yëkkati ca cérémonie officielle bu wooteb mam Seydina Limaamu Laay bi Les Échos nañu muy maam Libaas Laay ma fa teewaloon xalifa général des Layènes di Seydina Issa Thiaw Laay mi jiite comité d'organisation bu appel bi ak ministre intérieur Antoine Diome ñoom ñëpp àndandoo démb ñaawlu ñi bëgg a xajamal jàmmi réew am libaas lay ci xët mu njëkk vox populi mu fay wax ne jaam bi yàlla sunu borom àndal mooy jaam bi jëfe jàmm diggam ak moroomu jaamam ministre intérieur Antoine Diome dolli ci ne bi maam libaas lay di jàngale ak a jàmm booba kenn waxul waxi Gandhi kenn waxul waxi Martin Luther King soleil national bind na yoof wane nañu yoonu jàmm lëkkute na ko boole ci kit ni ñuy xuttee wurmay tarixe yi ci réew mi ginnaaw Touba Tiwaawoon ak Medina Baay askan wi ñu te di ko suuxat boole cekkit jox kilifa këri diine yi cër bi ñu moom ci réew mi réew mi quotidien nañu ministre intérieur Antoine Diome ci cérémonie officielle bu appel bi démb da doon dànkaafu ak di findu ñi bëgg a salfaañi démocratie ak jàmm bi am ci réew mi démb la ko wax ca Yoff keroog altine bu président Macky Sall ca Cambérène doon seeti xalifa général des Layènes direct news seetlu na nekk manqué ca ndaje ma mooy Abdoulaye ci libération mi xëy dem ca Dakar Naaf nee nañu dégg nañu fan yi yëpp ay prestataire di ay liggéeykat yu nekk ca Dakar Naaf yuy wax ne dañoo dégg ne naruñu renouveler contrat de ñu signé woon atum 1999 te loolee bu amee ñu bari ci ñoom danañu ñàkk seenub liggéey libération nee nañu loolee ñuy wax amul mbir yi demeewul noonee amul benn liggéeykat bu nekk ca Dakar Naaf boo xam ne bu ñu renouveler contrat bi da ñàkk sa liggéey li fa am yéenekaay bi nee nañu moo di dañoo gis ne société portugaise bi ñu séqaloon contrat bi ñaar fukkeet ak juróom yamu fa def yëpp bambulaa bu ko ci ñaari leetar yu ministre des finances ak budget Mamadou Moustapha Ba def moo dakkal bambulaa ga portugais si ca Dakar naaf ñaar fukkeet ak juróom yéenekaay bi nañu ci atum ci la waa Cour defoonub rapport doon jéebaane xeeti contrat bi dox ci diggante LISNAF di portugais yi ak état bu Sénégal te am na audit bu ñu fa defoon bu ko njëkkoon feeñal politique bi feeñ na fës na lool ci yéenekaay yu bari ñu xëy ci parti ci leader yu yeewi askan li ñu bëgg moo di wër ndomba Macky Sall ci élection présidentielle yu 2024 yi moo tax ba juróom ci ñoom rocceeko fel seen yoonu bopp samp seenum dënd ci présidentielle yi 2024 yi